السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أمرنا بتدبر آياته وقال في محكم تنزيله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أفقالها سنتي الله ci kaddu yi nga xamni ñu ngi koy jëm sax donte mënuñu ko matalé julli ci yonte bi aleyhi salaatu wasalaam di santat yalla mi nga xamni mom mo wax ci alquran ne xana dolen len setantal saytu sama kemtani muy kaddu yi nga xamni kaddu leer la wala sen xel moko mënul lijeenti ba mu nekk lu leer ci yeen wala sen xel moko mënul taataan ba mu nekk lu leen di jëriñ wala sen xel bok mo fatu ba mun len ko deg li tax ma jele fofu dañuy sante yàlla bu baax a baax damay jël exemple kenn rek ci nitu yàlla yi nga xamni titre aduna la waxantuma la titre Sénégal moy sunu mam Cheikh Ahmadou Bamba mom bi nga bi mu xamé ni wiiri wiiri jaari ndari da fa ne masaktu bil kitaab maskat dariri man dal man Cheikh Ahmadou Bamba teena alquran nisil makate yatam kon kooku mooy fas yéenoo ko bàyyi ndax silmaxa yatam moo koy moo koy gindi li tax ma jaar foofu mooy dañuy sant yàlla bi mu ñu defee ñu nekk ay doomu daara euh, di am mbégte wax ñi nga xam ni tey ñoom lañ jàkkaarloo ci jumtuwaay bi si nga xam ni foofu lañu jaar ci daara pour santee ko yàlla waaye feeñalee ko liggéeyu mag ñi ndax li ñuy liggéey du fi jóg ilaa yawmil qiyaamati sunu jaar jaar ci wàllu daara ñu ngi gane àdduna mbuur njëkk a dalee baa sunu keppaaru wayjur Zeynal Abidin Doucouré nga xam ne léppam alxuraan la woon lu mu am alxuraan la ndax doomu daara la te wayjuram xamul lu woon alxuraan comme ni mu nekk woon ak ay naataango doomu daara yoo xam ne foofu la ñu jaar moom moo njëkk a dalal ba ñu jàng alxuraan ci moom ba xàmmee mu toxal ñu comme ni mag ñi def da nga yor sa doom mais jàpp nga ne bu nekkee ci sa wet dina jàng waaye wóolu sa bopp noonu nga wóoloo sa moroomu ndongo daara nga yóbbu fa sa doom buy jàng ci loxo ñoo ñuy jaar ñu ngi ci njëkk tudd koo xam ne yàlla na ko yàlla yërëm def na lu bari ci ñun ci alxuraan ñu koy wax imam Bousso bi ñu jógee ci moom jóge nañ jaar ci koo xam ne mu ngi seed mu ngi tudd Seydina Omar Dia tukulóor la woon mu ngi jógoon Fuuta ak koo xam ne ndeysaan moom tam yàlla na ko yàlla ku baax la woon muy Seydina Omar Ly yoroon daara ci mbuur fii kër gu ñuy wax Jaawarakunda bi ñu jógee foofa nag dem ci école yi nga xam ni moom mooy niñ ko tuddee léegi daara moderne biñ ci njëkk a dem mooy Saad Ibnu Abi Waqaas ki nga xam ni moo fa nekkoon suñu wéyjur muy alxaaji Omar Ndiaye bi ñu jógee foofu nag am fa sunu saadatul ibtidaaya muy sunu certificat am fa saadatul idaadiya muy sunu brevet ci la ñu jël nag tànk yi laxasaay dugg àll bi di jaar fu bari foo xam ni tey buñ koy lim kenn mënu ci génnee Mauritanie fu mel ni Fuuta waaye nag teeree si fi nga xam ni mooy Ndakaaru ci daara ju ñuy wax tafsir Amadou Ba nga xam ne doomu soxna yi ñoo fa nekkoon bu ñu jógee foofu nag ca la ñu jaar université comme waajur yi ñoom fonk nañu daara fonk goo xam ne yemalaw ñu ko ak lenn bi ma fa defee 6 mois la ma sunu waajur newaat da ngay ñëw nga toog ci daara ji boobu ba léegi nag ñu ngi toogandiku toogu ndigal di fas yéene nekk euh, ñuy saytu daara di dox ci li nga xam ne mooy njàngale mag ñi ba keroog fu ko sunu borom yemale lii mooy sunu jaar-jaar ci gàttal ba tey tam ñu ngi jàng waaye ki nga xam ne tey moom moo yor sunu tarbiya di ko doxal ñaar laa ci tudd Mouhamed Abdoulahi Koyta ci Mauritanie ak professeur Cheikh Tahir Doucouré euh, ci Malicounda wala ci dakaar kon jaar-jaar baa ngi noonu mbokk yi asalaamaaleykum wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته